ci un jour au Sénégal un jour dans le monde alors tey jile benn fan weeru octobre bokk na ci li ñuy fàttaliku lu yàgg lool sax daanaka léegi mu def ñaari siècle benn octobre benn fan ci weeru octobre atum 1833 bés bi euh, Jean Dard génnee àdduna fële ca Ndar mu nekkoon instituteur français bu njëkk maanaam jàngalekat tubaab bi njëkk bi jàngale ca dëkk ba atum 1817 la fa tàmbali woon di jàngale ak euh, école am boobu nga xam ne ñoom fu njëkkoon di former ñoom ñoo mujji euh, di tàggat ñi leen gën a féetee ndaw moo loolu la ñuy fàttaliku ak yeneen xew-xew. 1er euh, octobre at yu wute ñoo dellu si 1er octobre 1902 si la ñu jëlee capitale bu Afrique occidentale française Ndar toxal ko Ndakaaru ginnaaw ba juróom-ñaari at jàllee ñu ngi ko sosoon 16 juin atum 1895 li tax ñu indi capitale bi fii ci Ndakaaru nag dafa nekkoon ay raison yu stratégique naka noonu léegi fonction gouverneur bu Saint-Louis bokkatul nag ak bu gouverneur de l'AOF ci loolu Ernest Roume mi yoroon nag ñaari post yi dañ koo yemal rek ci gouverneur général de l'AOF moom sax nag mu ngi dëkkoon Ndakaaru fi ñuy woowee palais tey jii nag mu nekk palais présidentiel bu Sénégal daanaka nag ba ba ñuy tas AOF atu 1958 Dakar moo nekkoon diwaan boo xamante ni si France foofu la doon jaaree ngir mën a di contrôler colonie yi mu fi bàyyi woon. 1er octobre 1985 aviation israélienne nag ñoo attaqué woon quartier général bu organisation de libération de la Palestine ba féete woon Tunisie suba boobu lu toll ci fukki avion de chasse yu bokk ci armée israélienne ñoo bombardé ñetti kër yoo xamante ni si waa ELP ñoo fa nekkoon bàyyiwuñu sax nag këru dëkkandoo yi ci diwaanu Hammam Chott féete Tunis bilan ba nag defoon na cinquante palestiniens ak nag dix-huit ñoo si ñàkkoon seen bakkan lu ëpp ci téeméer doomu aadama nag jëlee woon ci ay gaañu gaañu Faat mi nga xamante ni si moo nekkoon principal cible ba moom fekk ko fa woon ndax nag moom mi ngi yegg si woon Tunis ci veille bi jóge woon réewu Maroc bombardement ba nag fa la ko waroon fekk waaye dafa mujjee ni rek dafay dem fekk ji dëj bi ñu doon defal ancien ministre tunisien de la défense Abdallah Farhat mën nañu jàpp ni changement de programme boobu moo tax deewul woon ca bés ba 1er octobre 1846 moo nekkoon bés bi ñu doon installé Ndata Yàlla Mbodj ren duy waalo ci wetu Brak ma Mbodj maalik Mbodj Ndata Yàlla nag doom la ci Brak Amar Fatim Borso Mbodj ak Linguère Fatim Yamar Khouriyaay mbóoj teg si nag nekk rakk ci Jëmbën Mbodj mi nga xamante ni si moom la fay uutu Ndata Yàlla nag dafa nekkoon jàmbaar ju mag rawati ci taxawaay bi mu amoon ci colonisation française bi ci giiru dundam yépp nag dafa see dem ba jeex si xeex bi mu doon xeex tubaab bi ak naar yi mu ngi génn àdduna atum 1860 ca Dagana foofu sax dañ ko fa defal ab statut ngir di ko fàttaliku. ko er octobre 1980 si la ñu tas office national de coopération et d'assistance pour le développement ONCAD nag ñu ngi ko sosoon atum 1966 ngir mën a jàppale coopérative yi groupement pré-coopératif yi tamit assurel communauté rurale yi ay prestations de services ak it gérel baykat yi seeni ay semences. 1er octobre 2023 Dakar dafa amaloon benn opération de désencombrement ci ancienne piste bu aéroport bi nekk wetu Mermoz bulldozer yi nag dañoo maasale woon boutique yu ndaw ya fa nekkoon garage mécanicien yi ba ci sax nag baraak ya fa ne woon ci teewaayu police ak gendarmerie naka noonu nag foofu nga xamante ni si dafa xumboon te bari nit ba ay waxtu jàllee rek dafa wéet fees dell ak i mbalit ak nag ay débris ndax panneau ya fa nekkoon kiosque yeeg atelier yi yëpp la ñu daane ñu taxaw 1er octobre 1833 moo nekkoon faatub Jean Dard bi muy am 44 ans Jean Dard nag moo nekkoon instituteur français bi njëkk jàngale fii ci Sénégal moom nag moo ubbi woon fële ca ndax école publique bi njëkk ci Afrique occidentale française muy vendredi 7 mars 1817 fekkoon ko mu amoon 27 ans ñuy laaj rek kan mooy Jean d'Arc mi nga xamante ni si mën nañu ko jàppee comme papaay l'école française fii ci Sénégal bi mu deewee ak léegi def na cent 191 ans lu tax Sénégal ba nigi ni dafa nekk ci piège bu école du colon francais lu tax ñu yéex a defaat école sénégalaise boo xam ne ay doomi réew mi ñoo ko sos bu ànd ak sunu histoire réew suñu société ak sax sunu ay mbëbët ñun ñëpp xam nañ muy doxee gis nañ jafe-jafe ci am problème yi bari na te jàpp naa ni sax boo xoolee bu baax problème yi ko li bari yëpp fi nga njëkk laal ci question boobu je crois foofu am na lien am na rapport maanaam école bi léegi problème yi ci nekk am na rapport avec son héritage héritage bi mooy li fi tubaab bi bàyyi léegi effectivement boo xoolee bu baax école bi léegi ni mu tëddee ni muy doxalee organisation fonctionnement bi yépp maanaam dafa nekk ci loo xam ne mooy li fi tubaab bi bàyyi woon te loolu aussi bokk na ci li ko gën a gàllankoor li ko gën a gàllankoor organisation bi doy na waar bi dooy na waar parce que jublaay bi aussi c'est vrai que depuis presque 1960 ba léegi ñu ngi wax ay états généraux ay loi d'orientation ci kàddu gi ci texte yi yooyu yëpp baax na mais ci doxalin bi maanaam li ñu bind ci texte yooyu dafa ñu ci bari reflété wul feeñul ci doxalinu école bi te école bi effectivement man benn problème rek laa ci jël benn aspect mooy organisation bi organisation fonctionnement parce que boo xoolee dama la ci jox benn exemple bu simple euh, gis nga ci jamono yële passé ci euh, bac bi yéen a ngi fàttaliku élèves yooyu ñu daxoon te dañu doon yor portable élèves effectivement bi ñu leen dàqee man ba ñu leen di dàq nekkoon mais après dama waxtaan ak ñoom ci lu bari mais ndekete élèves yooyu ñu si bare bare bare bare ñu ngi jóge ci école franco arabe yi école franco arabe yi école boo xam ne aussi ak école arabe yi te boo xoolee école franco arabe yi ak école arabe yi ñuy doxee seen organisation seen fonctionnement ak yi nii di système formel bokkuñu. te école yooyu élèves yi fa jóge ñu ngi leen bëgg dugal ci système formel bi et malheureusement ñu leen dugal ci système formel bi ba nga xam ne yi ba léegi dafa des élèves yooyu booy waxtaan ak ñoom dañuy duggee ci lycée bi sax dëgg ci centre bi ñu ci bëri xamuñ sax luy centre xamuñu jury déjà am na ay barrières yu ci nekk en terme de représentation waxuma sax représentation gis-gis bi ñu am mais surtout sax kàllaama bi parce que élèves yooyu ay arab la ñuy def ñu ci bëri mais ñun président jury yi nekkoon tubaab la ñuy laajte ñoom xam nga déjà loolu rek. jafe-jafe la waxuma la dara cloisonnement interne bi nekk ci biir école bi rek loolu rek jafe-jafe la ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ba léegi boo xoolee jubluwaayu école bi en terme de finalité d' orientation tubaab bi bàyyi woon ba léegi ci loolu lañ tënku te loolu aussi wax dëgg yàlla jafe-jafe la dëgg la depuis nag ba léegi am na jéego yu bëri ñu def effectivement ci affaire réforme réforme nañ fi lu bëri yéen a ngi fàttaliku états généraux yi am na également donc les assises de l'éducation en 2004 du moins aussi am na beneen loi d'orientation boo xam ne moom moo gën a dugal njàngaleem diine bi ci école bi gën a yokk également donc scolarité bi mais ba tey des na ay coppitu yu ndaw la yoo xam ne changé wul dara lu lu lu bëri ci école bi te école bii nii pour nga tabax ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg il faut am loo xam ni il faut nga laal ko école sénégalaise bu ko manqué mooy un consensus maanaam amul déggoo ci principaux acteurs yi ci population bi ci lan mooy école lan mooy orientation école école bi fan lañ ko war a yóbbu fan la war a jëm nan la war a mel ak société bi wala la war a mel ak économie bi relation yooyu rapport yooyu ba léegi clarifié wuñ ko ba léegi dañuy wax valeur valeur valeur mais jusqu'à présent aussi valeurs yi clarifié wuñ ko il faut ñu xaaxu valeurs yi lan la ci yan valeur lañ war a sukkandiku pour doxal école bi même principe yi tey ñu ngi wax laïcité même laïcité bi ñuy wax ni aussi c'est pas très clair wala est-ce la boo xam ne ñun aussi dañ ko war a tëggaat wala nañ ko méngoo jamono méngoo également donc société bi méngoo également donc société sénégalaise ñu muy doxee parce que tamit laïcité bi ñu koy wax mais c'est extrêmement important te nit ñi lu ñu xamul mooy laïcité bii ñuy wax lu ci bari mun naa wax ne la loi de sur la laïcité en 1900 euh, a été votée en 1905 en France 1905 mais déjà en 1903 cette loi commencé à être au Sénégal pour wax la nag ne la presque Sénégal moo sax France en termes de laïcité pratiquement ñu taxaw ci docteur Mbodj li mu euh, jeexale noonu xëy na am na interrogation yoo xam ne ñu ngi koy samp euh, ci wàllum contenu yi maanaam curricula yi depuis des années lan moo tax mënuñu fexe ba ñu ne soppi ko ba mu méngoo ak li nga xam ne mooy suñu cosaan suñu aada ak suñu taarix. njëkk ñaan rek yàlla may ñu dund ba mën a nettali taarixu ki njëkk a dugal njàngaleem wolof. Hmm. ci l'école yi ki njëkk taxawal maison d'édition ci wàllu mbind mi ak ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a taalif mm-hmm. bind ko mais ci ñu taarix am na lu bëri loo xam ne ñu ngi ko ciy nettali te c'est très important ñu ciy taxaw élément bi par exemple <coughs> mënoon nañu am parti pris c'est pas une critique taxaw ci par exemple ci ndate yàlla nga xam ne intronisation bi histoire la mais xëy na jot nañ ko def fi moo tax ñu jàll ci lii mm. mais loolu yëpp tey li muy wane rek ci wàllum njàngaleem tubaab bi deux siècles quand jot na xëy na ñu def inventaire bi tey. Mhm. te inventaire bi tey mooy loo jàngalewul ci làkk bi nga xam ne moom la ñu namm moom la ñu namp. scientifique la ñuy wax ni perte nga ay at yoo xam ne nii xëy na doo ko rattraper jamais. parce que mhm. xale bi jàngalee ko ci li nga xam ne moom la namp. Mhm. du jar peut-être comme ni ñuy jàngalee grammaire orthographe. parce que xoolal xale bu juddoo day dégg làkk te xëy na jàngal jàngal bi ci. lu muy dégg la rek ba toppandoor ko donc forcément mooy gën a yomb njàngaleem calcul ci lànk làkk bi ñu nàmp moom lay gën a yombee ainsi de suite ainsi de donc deux siècles jot nañu def mm. inventaire bi tey quand même di saluer ñi nga xam ne ñu ngi def effort ci njàngaleem wolof bi notamment monsieur madame Diop faut important ils ont un par Boris mm. ak Adja Kodou Fall ils ont un parti mm. pris pour le wolof te loolu dañ ci waslu ak ñoom di ci xar seen tànk tubéey ba taxawal seen maison d'édition koddu tey mooy tàggat ñi nga xam ne ay journalistes lañ nekk ci CESTI. Mm. koddu Fall te si loolu c'est très important jàngal ko journalistes yi. Mm-hmm. ba bu ñëwee ci plateau yi aussi ñuy wàññi dama baat yi. te ñoom gis nga ñuy corriger mm. tout le temps. tout le temps tout le temps bi jàngat bi sax ñoom ñoo ñu ko corriger loon bi fii Boubacar Boris Boubacar Bouba Diop Bouba. ñëwee benn jour suñu plateau. Mm. ñoom ñëpp ñu ne ñu waaw mbind mi sax da koy soppi et puis. ñun tamit ñu nangul leen ko. j'ai grand-père aussi maam maam Youssou Ndiaye il y tient énormément chaque fois bu seetaanee émission bi dafa mën naan kii baat bii du nii baat bii du nii. Euh, c'est vrai donc c'est important le wolof quand ñu xam ni ñu koy waxee ak ni ñu koy bindee. Euh, kii euh, professeur. Ah, Massamba docteur Massamba Massamba moom tamit bokk na ci. Ah, c'est ça ak Momar Gueye également. merci beaucoup cher Abdoulaye Cissé ñu jàll très rapidement ci xibaar yi ñu tënk ko.